del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information Ousmane Sonko clic j'aime maanaam like like bi ak nombre de vues même valeur la am ci journalistes yi nekk dans la toile y en a beaucoup dans les télés de la place qui ont leur page qui sont tenus en laisse par les militants de Ousmane Sonko ba xam ne boo leen tegee ci plateau du ñu ñemee lenn luy ñaaw lu jëm ci Ousmane Sonko te loolu xam nga lu ko tax ko waral du gëm Ousmane Sonko ne bañ perdre public dans les réseaux sociaux les followers qui les suivent parce qu'ils sont en train de caresser Ousmane Sonko dans le sens du poil xam nga fi may waxee. Mm-hmm. corruption là c'est une forme de corruption et ces journalistes là sont achutés. di di di teg ay problème de couple nit ñi di ci waxtaan euh, page bu tudd de Dakar par exemple. position xaw ma dañu doon def ay problème loolu généraux ñëpp foog ni ñëpp ñëpp ci bokk ci affaire Adji Sarr bi ñu gis ne que en fait ces pages là étaient euh, des pages euh, dédiées à Ousmane Sonko en réalité. ah bon même page yi nga xam ni moo doon wax démb euh, sama jëkkër sama xarit ba nit ñi defee ni que elle était pro femme maanaam pour informé mm-hmm. ce journaliste yu mel ni ay ñoom Babacar Touré Babacar Touré doon wax ni journaliste d' la ak yeneen journaliste yi nekk wàllu fàttali Sen TV et cetera ñu gis la doon joobi la euh, euh, doon ŋaññee la doon ŋaññee euh, état bi ñoom ñu def la même chose c' à dire des journalistes à la solde de Ousmane Sonko. waaw ci foofu journaliste ci fo kàddu gi gën a fës daa lay jox. waaw. muy Babacar mu dem bay travestir salon pour joxe jox salon boobu nga mu jox ko aspect Sweet Beauté Sweet mu koy bu dem maquiller ko pour mu joxe aspect salon boo xam ne dafa yiw dafa ja jaar jaar na nit fa war nit ku toll nii Ousmane Sonko war fa mën dem yàlla def ñun ba affaire commencé dañoo def suñu propre recherche génne la vidéo originale nga xam ni moom la Sweet Beauté euh, li Sweet Beauté mel dans la réalité euh, gis ngeen taw ba ñu demee benn chaîne de la place la confrontation il n'a pas pu euh, revenir sur le plateau parce que après ñu jox ko preuve yooyu mënut amatu parce que en tant que journaliste quand on va jusqu'à pervertir la réalité transformer une réalité pour l'habiller pour servir la cause d'un homme politique au détriment d'une jeune fille démunie, pratique quasiment laissée à elle-même jusqu'à peut-être euh, récemment. Je pense que loolu euh, le serment bu dee journaliste la déontologie xoolaat bu baax xoolaat bu baax attitude boobu par rapport à cette affaire-là. Donc, je le disais l'autre jour, il y a beaucoup de journalistes qui sont disqualifiés puisque étant carrément des militants de PASTEF. bu ñu amul carte bi tam c'est des militants à au sens euh, plein du terme. est-ce que gisoon aussi yenn journalistes peut-être c'est la peur moo leen xaw a euh, moo leen xaw a kii parce que tey jii nii on a vu des des organes de presse qui ont été saccagés on vu des organes de presse yoo xam ne seen signal dañ ko daggoon ba xam nga euh, ba nga xam ne nii ñooñu peut-être tamit ñenn ñi nguur gi. di leen menacer ci benn côté bi ñeneen ñi les partisans de de de Pastef di leen menacer ci beneen côté bi bu ñu waxee loo xam ne euh, ànduñu ak Sonko wala lu nu donc aujourd'hui peut-être que est-ce que du ragal wala peur boobu moo moo leen xawoon euh, mëne ba ñu ragal ba ñu ba ñu bëri jàpp ne c'est c'est des journa c'est des journalistes yoo xam ne dañu nekk ci côté euh, Pastef est-ce que du loolu. parce que tey ku mel ni yow gis naa ci benn live aussi ñu lay menacé j'ai bëggoon naa ñu ci foofu menace yooyu aussi gis nañ que ngay wax ne dañ la menacé de de mort dañ la menacé taal sa kër loolu aussi naka la demee. waaw dama njëkkee ci première euh, kii bi. ragal euh, mais ñaari question yi sax sont liées en fait euh, depuis 2014 le PASTEF ñëw sur le champ politique à partir de 2000. 2016 2000 non à partir de 2017 ñu jël la euh, saaga ak harcèlement ak terrorisme. Mhm. def ko comme ñoom seen outil de euh, combat. Mhm. moom moom la ñuy xeexee sur le plan politique. léegi euh, harcèlement bi day nekk ñu jël la di la saaga di la saaga saaga yu ñaaw di la wax wax yu ñaaw di la def yoo xam ni yow sa bopp bu dee comme on dit sénégalais da ngay da ngay daal ne ah lii de bu parce que su ma ci waxee dañ may saaga te bëgguma ku saaga samay waajur. Mhm. xam nga loolu mooy réaction typique sénégalais. Mhm. Euh, léegi bi mooy dañoo yëg à un niveau boo xam ne mosuñu tu euh, si yeggoon nañ ci parce que man de deux mille dix neuf après les élections a au moment où je vous parle euh, j'ai reçu xanaa su ko doon xayma war na mën peut être cinquante menaces de mort ay ñoo xam ni su may wax ci Ousmane Sonko. soit ñu ñëw sama inbox wala ñu bindal ma ko fa may ne ma yow dañ lay taal. Mhm. yow dañ ay yow ba ngay wax c'est parce que nekkoo fi boo fi ñëwee ñu jël sa bakkan façon yooyu dañ ma koo wax ba man dama ko mujjee mis. Mhm. c'est que léegi nag dañ ko dañoo dépassé Françoise dañ ko étendre aux autres journalistes de la place. Mhm. ci la am ampleur bi parce que ñooñu tàmbuñu ko mais man dañ ko mis parce que ci laa nekk depuis deux mille euh, dix huit non deux mille dix neuf ma jógee élection yi. Mm-hmm. ñoom dañoo bëgg mu ñu fexe en sorte museler Sénégalais yëpp kenn dootul ñeme wax leneen lu dul Ousmane Sonko il est beau il est gentil il est le meilleur te dëkk boo xam ni comme ñun Séné euh, dëkku Sénégal bi ñu bokk. Mm-hmm. xam ni mag yi dañoo teel am culture démocratique 1960 bu leen fàtte ni nit ñi xeex nañu Senghor ba ñu rey fa ay à peu près personnes. Mm-hmm. donc loolu ñun dañoo am acquis démocratique yi yegg si ba deux mille vingt et un deux mille dix neuf à partir de deux mille dix neuf mhm. benn doomu Sénégal ne dafa bëgg nguur gi obligé tous les Sénégalais à vivre à genoux Sénégalais yu àndul ak moom rek da ngay dund nekk da ngay sukk dootoo mhm. ngay nekk wala quart de Sénégalais da ngay vivre à genoux et da ngay obéir à ces fedayin ay ay xale yoo xam ne da leen dañ leen di laxe vingt quatre heures sur vingt quatre dans les réseaux sociaux mhm. jox leen les moyens jox leen indiqué leen yan page ak yan nit ngeen war a dem di attaqué di leen saaga di leen tooxal di leen menacé ba ñu daw mhm. man def nañ ma ko pendant deux deux ans ma taxaw jàkkaarloog ñoom ba ma sësee dama taxaw saaga Ousmane Sonko comme nañu may saaga ñoom dañu yóbbante yónnee nit ñi ñu ñëw di ma saaga noonu laa saaga Ousmane Sonko ba ñu xamee ni que amul ragaluma man sama image ma collé ci ni maa ngi saaga ci la ñu commencé xaw a wàññi ardeur parce qu'ils ne comprenaient rien d'autre. J'ai essayé de, faire des appels à Ousmane Soko lui-même, aux membres de son parti, où on a journaliste bi Babacar Touré, où a wax ko, parce qu'ils savaient d'où venait que c'était une stratégie de lutte qu'ils avaient euh, de faire Babacar sama xarit la mais dem naa ko wax ko ko ne ko won ko page gens insultent Mm-hmm. mais war ngeen jóg mais moom dafa def semblant que ni il n'était pas concerné que ça l'intéressait pas il est passé à autre chose mm-hmm. donc tous ces journalistes là il y en a beaucoup qui ont peur d'être insultés ñenn ñi dañoo bëgg ay clic a nga mallette yi nga xam ne palais da ko doon joxe bu njëkk ba pour euh, jënd ay journaliste tey Ousmane like like bi ak nombre de vues même valeur la am ci journalistes yi nekk dans la toile il y en a beaucoup dans les télés de la place qui ont leur page qui sont tenus en laisse par les militants de Ousmane Sonko ba xam ne boo leen tegee ci plateau lu ñu ñemee wax lenn luy ñaaw lu jëm ci Ousmane Sonko te loolu xam nga lu ko tax lu ko waral du gëm Ousmane Sonko ne bañ perdre leur public dans les réseaux sociaux les followers qui les les suivent parce qu'ils sont en train de caresser Ousmane Sonko dans le sens du poil xam nga fi may waxee. Mm-hmm. corruption là c'est une forme de corruption et ces journalistes là sont achetés de même que d'autres journalistes sont peut-être achetés par d'autres euh, privés ou par l'État quand tu prends bal ma damay wax ay tur un Pape Djibril Fall mm-hmm. ak keneen kooku nekk 2S ak kii nga xam ne nouvellement devenu une patriote la dame là qui qui s'appelle euh, nan la tudd sax qui se permet de bloquer des gens parce qu'ils écrivent sur son live Je suis Adissa, on va se demander dans quel Sénégal on est. Les de la stv s'est permis de bloquer des soutiens d'Adissa juste parce qu'ils écrivaient dans, le live de la 2 ah émission. Les membres de nos, groupes, les soutiens d'Adissar, ils que je suis Adissar, ce qui est le droit fondamental. Ndendak de la DSS les a bloqués pour les empêcher de s'exprimer. Mhm. Donc ça, c'est le cas extrême. Mais je vous dis que c'est la visibilité dans les réseaux sociaux qui fait que se sont quasiment vendus à la cause de Ousmane Sonko. Ce n'est par conviction. Maintenant, Babacar Touré, un cas particulier. Lui, c'est un ethniciste. Mais, mais Bab de Babacar de... Hitler doon lan yooyu façon théorie Hitler. vous de Babacar de Hélène. Babacar dossier yi muy défendre yëpp ka muy défendre c'est quelqu'un de la Casamance. Hélène ah d'accord donc vous parlez de Babacar de Kewlu. teewlu. ok d'accord parce que gis naa euh, si jamono fan yu weesu que ngeen bokkoon benn plateau a la DTV je crois bien mais c'était un mm-hmm. peu un tendu donc on a vu vraiment moom am na kàddu yu mu la génneel nee na la Hélène nekkuloo États-Unis nekkuloo Sénégal noo mën a nekk États-Unis maîtriser le dossier Adji Sarr Sonko. saret mm-hmm. ndax moom mi nekk moom mi nekkoon France Sénégal moom moo njëkk a génne dossier ci Assane Diouf te tegul woon tànkam Amérique mm-hmm. Assane Diouf xamu ko man xamuma ko jegewul Assane Diouf musul gis Assane Diouf te pourtant moom moo njëkk a def dossier spécial Assane Diouf toog ay waxtu di wax ci Assane Diouf te xamu ko mm-hmm. man au moins damay bàyyi ba nit ñi wax les principaux concernés mooy Ousmane Sonko ak Adji Sarr ma doo wax dama commentaire ce mhm, que di mhm, di mhm. Ousmane Sonko ak Adji mais moom demul def interview ak euh, Assane Diouf par exemple pour xam lan la Assane Diouf euh, wax wala lu mu xalaat ak lu mu doon ak lan la dund dafa toog fa mu def ay supposition def ay analyse am daal di def euh, son documentaire donc ku def loolu taxaw naan ma dossier Adji Sarr nga xam ne Ousmane Sonko ak ay ak ay ñoñam vingt quatre heures sur vingt quatre ñu ngi sillonné les pala les de télé Adji Sarr génn wax sa version de faits man ma toog léegi di ci di ko défendre di ci wax mu ne ma yow amoo ci information lan ngay def ba koy défendre donc tu vois que cet homme là. il y a lieu de se poser des questions sur moom sens des proportions quoi. donc donc donc donc donc donc si si je. parce que c'est un frère comme je le disais. complètement de crédibilité et de constance. d' accord dans son travail de journaliste et il est fortement fortement. influencés par son appartenance à la Casamance dans le traitement de l'information, quel que soit le dossier qu'il traité. S'il y a un cas assez, euh, euh, quelqu'un d'origine de la Casamance, Babacar Touré est avec toi, que tu aies tort ou pas. Et il va essayer de vendre ton dossier donc, comme si tu avais raison. Donc, il y kii parce que waa Casamance la wala donc foofu nga bëgg a waxee. absolument. d' accord ok revenons un peu à Adji Sarr un peu en arrière euh, Hélène gis nañ aji Sarr mu génn euh, def benn sortie médiatique boo xam ne euh, sénégalais yëpp la majeure partie du ma ne ñëpp ah parce que ñenn ñi gëm nañu li muy wax waaye ñeneen ñi gëmuñu li muy wax nee nañ li muy wax amul cohérence wax bu daanu ci sareet la ah donc yow tey avec la sortie de Adji Sarr lan nga ci mën a wax loo xam ne concrètement sénégalais yi déglu nii en ce moment dinañ ne ah ñun kat lii échappé woon nañu waaye pourtant lii nii la wala nii parce que gis nañ ne émission bi déjà c'était pas en direct et après les journalistes de Leral ils ont confirmé que ils ont enregistré euh, l'émission et que Adji Sarr effectivement amoon na benn feuille bu nekkoon ci kanamam boo xam ne moom la doon lire li muy war a wax tey lan nga mën a wax ci loolu. waaw euh, Sarr est une fille de 20 ans qui n'a pas un long parcours académique. Mmh. Agissar n'est pas une professionnelle des médias. C'est une jeune femme qui euh, dafa doon jàng couture guddi mu dem defi massage concours de professionnel de communication ba ñu war ko mën a ñëw teg ko ci direct mu war a expliquer des affaires yoo xam ne da koo mhm. des affaires qui sont très intimes. Mhm. maanaam des affaires qui ont trait à sa dignité humaine en tant que femme. Mhm. des choses qui sont assez traumatisantes en tant qu'être humain. donc c'est normal que bañ a nekk en direct que mu nekk loo euh, affaire bi mooy. note yi nga xam ne lu mu doon wax dafa jël note man miy jàngalekat te jàngale du ma peut-être plus de quinze ans su may wax laa damay bind ay note mm-hmm. loolu defe naa ni euh, préparation bi aussi defe naa ni Ousmane Sonko ci boppam buñ koy buy dem. Euh, buy def discours. ba wax voilà dañ koy jox. dañ koy jox ay ay ay dañ koy préparer. tàggat ko mhm. jox ko ay ligne ñu ko war a won ko lan ak lan la war a wax ak yan sujet la war a moytu mhm. loolu président de la République du koy mhm. defal euh, Barack Obama ci boppam xam ni c'est communicateur hors pair buy dem am na équipe bu koy préparer pour mu wax donc xale bu am dix huit ans du professionnel média il faut pas espérer on devrait pas espérer que cette petite là puisse tort wax comme ni ni ko un un journaliste de grand calibre comme peut-être euh, ñi nekk CNN wala ñi nekk euh, TFM ni ñuy communiquer population sénégalaise xale boobu moo mhm. donc relever les des insuffisances dans ce domaine-là ça toujours dans ci malhonnêteté bi nga xam ne déplorer ci partisan Ousmane Sonko yi. Mhm. la malhonnêteté intellectuelle la tendance à tout manipuler à outrance. à jeter le pauvre sur euh, les adversaires bu ñu xoolee léegi conséquence bi ça les dessert parce que Sénégal yi mun nga leen manipuler pour un temps bien précis mais dans la dans la durée. Mhm. nit ñi ku ci nekk da xool da nga xel di nga xalaat xool xam tu vois que ni lii dara newu ci ñii ñoo ko nekk di manipuler et c'est parce que dañoo am lu ñu war a duñ ko bëgg a mhm. d'accord. tey jii nii euh, de jot naa ci ay question ak ay commentaires ñu ne Hélène dafa yàgg contre Ousmane Sonko moo tax tey mu taxawe fu mu taxawee lan ngay tontu ci loolu. waaw euh, bu leen neexee je les comprends man toute façon avant su ma waxoon euh, quand je quelque chose dañ ma toujours c'est parce que tel parti nga bokk wala tel homme politique nga bokk li ma jotee Ousmane jotewuma dara ak moom sax lay wax li ma boole ak partisan Ousmane Sonko mooy seen allergie à la diversité d'opinion seen allergie à ce que xam nga ñoom dañoo mel ni comme dañoo am allergie dëgg mhm. dëgg la vérité en tant que ñoom dañ ko allergique mais ñoom li ñu bëgg mooy la leen arrangé rek nga koy wax la ñu bëgg dégg rek la ñu bëgg nga koy wax mhm. su ma wëlbati ko moo baax sant damay nekk mhm. léegi nit koo xam ne dafa baax nit koo xam ne dafa patriotique nit koo mhm. xam ne vraiment macha allah. est-ce que mhm. yaa may dégg waaw mais tant que yaa ngi wax leneen lu bokkul ak bokk Ousmane Sonko rek la mu bëgg dégg wala la ko arrangé yow nit ku bon la effectivement Sénégalais yi dañuy doog a découvrir loo xam ne man découvrir naa ko depuis 2017 Ousmane Sonko lii nit ñi doog a teg seen bët ni tey man maa ngi ko découvrir Mm-hmm. tuddee ko solution am na suivre panel bi ay journaliste posé ko ay question yoo xam ne da koo da koo escamoté mm-hmm. ma def laay posé waat question yooyu critiqué livre mm-hmm. jour boobu la ñu commencé mu nekk en guerre man ak waa Pastef parce que